salaamaaleykum mbokk déglukat yi dellu siwaat nañ indi leen ab xibaar ci ball Gaye 2 mi nga xamante ne mi ngi yëkkati kàddoom pour la première fois gannaaw ba mu ñàkkee kombaawam bi nga xamante ne moo doxoon ak kii di Bombardier laata loolu bu leen fàtte benn yoon abonewu wu ci chaîne bi ngir mën di jot saay su nekk ay xibaar yu wér wóor Balla Gaye nag mi ngi xamle ne combat bi ab tawféex la ci jóge ndax ameewu ci rëccu benn yoon ndax adversaire am bii di Bombardier deful dara dafa taxaw di ko xaar ba tax action yi am ci combat bi yépp moom Balla Gaye 2 moo ko daal di def ndax kii di Bombardier nanguwul bëre benn yoon ñu ko laajee nag moom Balla Gaye 2 lan moo waral song jiwul kii di bombat Bombardier ba mu amee ñeenti avertissement mi ngi xamle ne demeewul noonu benn yoon ndax jëm na ko song ba mujjee génn saaku yi ca la ko arbitre bi daal di jox cinquième avertissement mu jaaree fa daal di ñàkk combat Seynabou Diop pour seen xibaar info